ginnaaw nuyoo bi leen di ziyaara ci weeru tedd wi di shahru ramadan al mubarak leen ci ndokkeel di ñaan sunu boroom subhanahu wa taala niñ ci duggee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génne noonu ci alhamdulilahi rabbil alamin te sunu boroom defal nu tawfiq ba nu màng ko ca def jëfe ndigal li ca na mu gën a mate na mu gën a selle te nangul nu ko nangul nu mboolem suñu jaamu yàlla yiñ ci def yëpp ak ya jiitu ak yi ci nar a topp ci coobare suñu boroom jéggal nu it mboolem suñu rëcc yu yuñ ci am ak yi jiitu ak yi ci euh, tey fas yéene tam jéem a góorgóorlu ci lii di ñëw yàlla di koy ñaan mu jéggal nu yërëm ñu Euh, yàggal kilifa gu mag gi ci sunu kanam dëgëral ko sàmm ko aar ko mu nekk tatal lislaam di ndamul sëriñ bi di di kaaraangeek jullit yi di seen womatkat bi leen di teg ci siraatul mustaqim di leen teete euh, ginnaaw loolu waxtaan wi ñu ngi koy tàmbalee ci jot li ndigalul sëriñ bi mu aju ci ni ñu war a ñëwee ci béréb bi ak yi war a sàmmanteel ci nekk gi ak bu ñu dee dellu sëriñ bi joxe na ndigal loo xam ne lu wér la lu mu yaxal màndargaal ko joxe ndigal ci jot li ko jox ndigal it daayiratu muqaddamatul xidma ci ñu taxawu uh, jëfe gi jàppalante ceeg nit ñi mu joxe it ne ndigal loolu nañ ko wéyal ci béréb bu sell bi ak bépp bërëb boo xam ne ci bii la aju mooy mboolem jumaa yi na ci dëkk bi uh, ndigal yi muy joxe fii la joxe foofu fépp ak fépp fu ab jullit nekk tey déglu ndigalam ndigal yi di ci jëkk mooy képp koo xam ne yaa ngi ñëw di julli si nanga indaale masque nanga takk masque booy ñëw boo dee koo xam ne mënoo koo def na nga yor kaala boo xam ne dana mën a muur sa kanam sa sa sa bakkan ak sa gémmiñ kon loolu nañ ko sàmmante képp kuy ñëw rek nga indaale masque boobu walla nga kaalawu kaala gu mel noonu ngir nga mën a aar sa bopp aar itam ñi ngay jaxasool ci kattanu yàlla ak coobareem euh, képp koo xam ne ñëw nga te indaale woo ko itam ah buñ la joxee ndigal ci nga dellu wuti ko nga xam ne kon loola ñu ngi ko def ci ndigalul sëriñ bi kon loolu lu ñu war a waajal la bu ñuy bàyyikoo ca kër ya di ñëw bu ñu yegsee itam ci bunt bi eh, am na leen ndigal lu fi li ci lu ñëwaat mooy ñu raxasu raxasu ci raxasukaay yi nga xam ne dañ koy fego wala ñu laal loolu nga xam ne moom la ñuy diwoo tamuy loo xam ne day dàq jàngoro ji di ko fekk kon képp ku ñëw itam buñ la waxee nga def ko danga fekk ci bunt bi ñoo xam ne loolu la ñuy fay eh, loolu la ñuy fàttali ni lañ ca soññ kon ñu sàmmanteek ndigal loolu ci raxasu wala diwu diwoo eh, alcool boobu nga xam ne moom la ñuy diwoo loolu ci bunt bi balaa kenn dugg bu ñu dugg see itam eh, sàtte yi dootul melatul nam daa mel feeg diiru jamono ni ñu daan wax ne nit ñi dañuy sësaloo di sës rek kenn ku nekk sës ci sa moroom ci nit ñi daa sàppee day amuk soppi ko ba jëmmi jamono mooy nit ñi dañuy xaw a dandante kenn ku nekk diggante ak moroomam luy war a toll ci mètre mbaa lu jege loolu waa daayira bi am na liggéey buñ ci def mandargaal barab yi diggante yi ni nit ñi ci ñu tooge noonu loolu itam sëriñ baa ngi joxe ndigal ci ñu dimbalenteeg waa daayiratu muqaddamatul xidma te ne ndigal rek moo leen fi bàyyi moom rek itam dañuy jëfe lu yéwénal mbirum mbooloo mi rek itam moo leen fi bàyyi kon képp ku ñëw na nga jëf dimbalenteeg ñoom ñu la teetee ba ne la fii mooy tooguwaay bi nga dëppoog ñoom ca la kon loolu itam ñu sàmmante ko mooy sàmmonteeg ni ñuy tooge eh, ci biir eh, jumaa ji ci dandante boobu kon ñu ñu ñu ñu ñu ñu moom wattandi bu ñu jullee itam ba war a génn génneen wit ñu nos ko bañ dajaloo ci bunt yi eh, ndax dajaloo bi mooy li ñuy wattandiku di ko moytu kon bu ñuy génn nañ génn ndànk-ndànk di jiitlante baña a sësaloo baña a euh, tancaloo loolu itam ñu bàyyi ci xel baax bu ñu jullee ba àggal ba war a génn ñu bàyyi xel ci loolu euh, génn génnin wu nosu woo du am buuxante du am rajajloo du am sësante ñuy dandante ku nekk nekk ba ca ca sa kanam génn ba àggal nga door a nga door a génn loolu itam ci ndigal yi la bokk ñi nga xam ne ñooy ñi jullik ajuma warul muy jigéen ñi ak gone yi itam joxees na leen digal ci ñu mën a toog ñoom ci seeni kër ba ak yaatal gën a am ñu door a julli si kon ñi nga xam ne ay jigéen lañu ak ñi nga xam ne ay ay ay gone lañ nga xam ne jullik juma waruleen kon jox nañ leen digal ñoom nañ nañuy toog ca seeni kër ba jëmmi jamono ba ak yaatal am ñu door a tàmbalee e, julli si dafa mel ni kon loolu mooy ndigal yi nga xam ne sëriñ bi joxe na ko jox ko waa daayiratu muqaddamatul xidma ngir ñu jot ko mbooloo mépp mu jaar ci suñu kàddu te njëkkoon naa jaar it yeneen yeneeni kàddu te it ñi ñëw ñëpp dañ fekk ñu leen koy gën di leeralal di leen ca gunge kon ñu dimbalanteeg waa daayira bi ci wéyal ndigal yooyu taxam na lépp ci sëriñ bi la bàyyi ko te dara tax koo jóg lu may ngir sàmm wér yaram mi doomu yi ak sabablu seenu mucc nii mu ko joxee ndigal yi fii ci béréb bii di jumaa ju mag yi noonu la ko joxe ci mboolem jumaa yi ne ci dëkk bi yépp ak fépp fu jumaa nekk tey déglu ndigalam bi ca kon ndigal yi mooy yiñ joxe foofu yëpp kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax euh, sàmmonteeg moom loolu kon ndigal la loo xam ne moom lañ doon ubbee waxtaan wi di ko doon ko jottali mu bàyyi koo ci euh, sëriñ bi ñun ñëpp ñu war cee tënku war cee bàyyi xel mooy képp kuy ñëw nga yor mask mbaa kaala boo yegsee nga raxasu boo eggee fi ñu lay joxe loo diw ci sa loxo nga diw ko boo dikkee barab bi ñu la toogloo ngir nga war a danteeg sa morom nga toog dandanteeg moom boo àggee ci war a génn itam ñu nos génn bi bañ rajo rajo ci bunt yi ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ak ndaw ñi nga xam ne jullit ajuma waragu leen ñu jigéen ñi ak ak ndaw ñi gone yi nga xam ne jullit ajuma waru leen ñoom ñuy toog ca kër ya ba jëmmi jamono ba ak yaatal gën a am kon loolu mooy ndigal yi nga xam ne moom lañ doon jottali ci ubbiteel waxtaan wi liñ ciy jokk rek mooy ne lii kat mooy ndigal yi nga xam ne moo aju ci fegu fegu gi nga xam ne lislaam moo ko santaane nga xam ne sunu boroom lépp lu muy eh, dogal day am zahir am baatin day am biir am bitti bitti bi mooy ay sabab yu nit kiy jaar waaye biir gi mooy pas-pas bu nit ki am ci digganteem ak boroomam ak ngëm gu muy taqoo sabab yi mooy mooy sharia waaye pas-pas bi ak gëm gi yàlla ak di ko bàyyi xel loolu mooy mooy mooy xaqiqa bi muy loo xam ne kon julli bi dafa boole ñaar yëpp boole zahir boole batin ndax loolu moo di teggin lil jamci bayna sharci wal xaqiqa fa huwa istiqaamatul fata xaqiqa sëriñ bi nee na dëgg dëggi jub mooy nit ki lépp lu muy def mu boole sàmm ñaari ndigal yépp ndigal yi jëm ci bitti ndigal yi bitti yi nga xam cër yee koy jëf doomu aadama yi di ko di ci teg bët ak ndigal yi nga xam mi ngi ci biir di loo xam ci xol lay aju borom bi di ko gis e, ki mu ko seqal di ko jëflanteeg moom itam di ko di ko yëg kon ñaar yooyu moo war a ànd kon bu ñu jëfandikoo ndigal yi saayir itam nañ bàyyi xel ci sunuy pas-pas gëm yàlla wéetal ko xam ne lépp lu am ca moom la bàyyi koo te gëmmut nelawut sàgganut dara du am loo xam ne lu ko sóobut la dara du am itam loo xam ne fekkul bindoon na ko la jiitu tàmbalik jamono yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne nit ki bu nekkee ci biiru waay jorom bu jigéen ci la suñu malaaka mu bind euh, mu bind ab aw fanam at yi war a am ci àdduna mu bind ko bind wërsëgam nu muy toll bind ndax ku texe lay doon wala keneen ka bind itam ndax ku baax lay doon wala keneen ka loolu xadis la sëriñ bi fàttali ñu ko wax ne wa faraxal mawla min arbain ajal wa xuluqin rizqin wa xal wa xalqin xul ajal mu ne suñu borom noppi na ci ñeenti yëf yi bind na ko bu yàgg yàgg ba nit koy ñëwagul jamono loolu mooy euh, aw fanam maanaam kañ lay génn àdduna bis ba mu waree génn àdduna waxtu wa suñu borom bind na ko te du génn àdduna lu dul bu yàlla yabal ndaw lu bàyyi ko fa moom dikk woo si ko jël si ko euh, ak euh, ji jikko maay ni mu a mel ndax ku baax lay doon wala ku ku ku mel neneen lay doon loolu tam da koy bind euh, wërsëgam nu muy toll da koy bind euh, ak mujjam itam fa muy mujj ndax aji texe la ndax dañ ko bind ci waa aljanna wala dañ ko bind ci waa kër ga ca des yàlla na ci yàlla musal loolu itam ne noppi na ci mu ne wa annahu jaffafa zaaka alqalama bi kulli cheyin kainin wa qassama nee na suñu borom xalima gam doon bindee dogal yàlla yi dogalam yi xalima gam doon bindee dogal ya bind na ko ba teg ba xalima ga fendi na lam bind wow na te deesatu ko far seddale na wërsëg yi ak cër yi ba lu ci nekk toll na muy toll xam na ko te waxtu wu joxe ko jotee dina ko jox ñam koy jox ca nam nam ko nammee mu ne wa minhu yati dur wa nafu maa fa nahiyahu tanib wa amrahu baa mu ne ci moom dong wa minhu dafa jiital minhu da ko jiital day wane ne du jóge ci keneen mu ne lor ci yàlla dong lay jóge njariñ ci yàlla dong lay bàyyi ko kon moom dong ngay mën a jariñ moom dong nga mën a lor mu ne kon na nga topp na nga wattandi ko ay tereem moom mi nga xam ne moo la mën a musal tey topp ndigalam moom mi nga xam ne moo la mën a jariñ fasiq bihi summa alayhi takila wa anka daa tadabzuban wa wajala nee na ko na nga wóolu yàlla nanga doyloo yàlla nanga nga yàlla ci yàlla wakkirlu ci moom te bàyyi fër fër bàyyi ragal bàyyi ñàkk sago bàyyi jaxasoo bàyyi euh, lépp loo xam ne dalay xañ jàmm ngir sa ñàkk gëm nga wattandiku loolu te xam ne yàlla yor mbir yi te moo koy doxal nam ko soobee kon pas-pas boobu itam euh, jullit bi da ko war di takkoo saa su nekk rawatina su jamono yëngoo ay xew-xew am euh, lu yàlla fu yàlla di nattu ay jaamam di xool fu seeni gëm toll ak seeni pas-pas su boobaa jullit bi daa war a gën a dëgëral ak gëmam gën a rafetal njortam gën a dëgëral ak jokkoom ak boroomam gën a dellu ci moom kon pas-pas boobu itam bokk na ci yi ñu war a bàyyi xel war bàyyi xel it ci ne lépp lu ñu dal ñoo ko teg suñu bopp ci suñu càggante ci suñu doyadi ci suñu ñàkk tënku ci ndigal wa ma asaabakum musibatin bi ma kasabat aydikum wa yafu an kasir nee na lépp loo xam dal na leen ci xeeti musiba yéena ko teg seen bopp te sax yàlla toppewu leen ni ngeen di jëfee bu fekkoon yàlla di topp jaam ci ni ñuy sàggane bu ñu sàggane rek mu daal leen koy wan nee na kon dara luy dund du des ci kaw suuf kon ku bari yërmande la ku ñewent la waaye lépp lu mu teg nit ci musiba wala balaa ci càgganteem la aku doya dem aku ñàkk jaar yoon loola nag day mel ni ab yeete la bu ko yàlla yee di ko wan ne ko wàcc nga yoon wi delluwaat ca kon nattu bi bu ko ko tegee daa mel ni nattu bi da ko ci yëgal ne ko yaa ngi nga ci yoon wi nga nekkoon yoon wi nga waroon a ne yaa ngi ciy jàdd delluwaatal ci ko yoon wa te rëccu te tuub te jégglu wàcc ga nga xam ne wàccoon nga ko kon dellu ci sunu boroom tuubal ko tuub bu sell te sax ci di ko jégglu loolu itam dafa war ci waxtu nekk waaye rawatina waxtu wu jaam bi yëgee ne sunu borom teg na ko nattu su boobaa daa war a jëkkalaat ab toogaayam gën a rafetal aw doxiinam kon tam delluwaat ci sunu borom ci tuub tuub bu sell te jégglu sax ci di jégglu ci sunu digganteek moom waaye itam defaraat itam sunuy diggante ci xeeti jëflante yi gën a rafetal jikko yi gën a dëggu gën a woo gën a wóor gën a am ngor gën a maandu gën a ragal yàlla gën a am yar gën a ami teggin euh, loolu yépp itam bokk na ci li ñu war a bàyyi xel balonte àq jéggalante yërëmante ndax Euh, nit ki buy tuubee ci digganteem boroomam itam digganteem ak moroomi jaamam moom ah, sunu boroom ci maandoom ah, da leen di bàyyi ñuy toppante àq ah, kon loolu itam ñu bàyyi xel di jéggalante di di baalante àq kenn ku nekk ci ñu jàpp ne fas ci xolam ne képp ku ko ameel àq ci àdduna jëpp bépp jullit bu ko ameel àq rek baal na ko def ko ci xolam ne baal na ñëpp loolu bu ko ñëpp defee ñu ñëpp bu ñu def jàppee ci suñu xol na ñun ñëpp kenn ku nekk ci ñun baal nga képp ku la mas a tooñ mbaa ku la masa a amee làq te yàlla seede ko su boobaa bu ñu ko waxantewul ci suñuy làmmiñ itam yàlla mi nga xam ne moo doon bind àq yi moom te di ko fayante euh, su ki ne jéggal na ki ko ameeloon àq xolam yàlla seede ko euh, su boobaa daal nay teggiku ka nga xam ne moom la tege woon kon ñuy jégg jéggalante di balante àq di yërëmante loolu kon itam ci jamono ji mel nii gën naa warati gën naa feddliku waaye mu am lu am solo lool ci waxtu wii te am ko di ko am saa yu nekk mooy dimbalente dimbalante ak jàppalante ci jamono yi weesu sëriñ bi joxe woon na ndigal ne képp koo xam ne yàlla may na la kàttan ak man-man boo gisee koo xam ne yaa ko ko ëppale le nga ko ca jàppale na ko jàppale ci sa kattan ci sa am-am ci sa man-man kon digle woon nan ñu jàppalante dimbulante ku nekk jàppale sa morom ca la nga ko la ko la tanee ku nekk nga defal ko la nga ko mënal euh, rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara alquranul karim yi di jàng ak a jàngale ñooñu bokk na ci ñi mu gënoon a bàyyi lu xel te loolu itam waxu ko rek yam ci waaye daf caa daf caa jiitu ci jëf yit na ci jëf ñëpp dégg nañu jëf yu am solo yi mu jëf mu jëm ci mbooloo mépp waaye rawat na jëf yi jëm ci waa dëkk bi euh, loolu bu ko defee jublu na ci jàngale waale yëgalaale ñu ne lii ndigal la lu ma leen digal ndax ginnaaw mooy sunu royteef na ci sunu kanam euh, fépp fu jaar rek foofaay yoon wa kon ñun ñëpp it noonu lañu war a def kon kenn ku nekk ci noonu rek la nga am lu mu néew ko bari nga bokk kook ña nga dendal te ittewoo ko wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa bokk na ci lii sunu borom taggee saxaaba ya nee na ñoom bu ñu masaa yor dara seen mbokk soxla ko seen mbokkum jullit soxla ko dañ koy yëkkati jox ko ko te muñ ñoom dañ koy yittewoo lool nag ni ko mbokk ma soxlaa noonu lañ koy soxlaa mbaa nu ko raw waaye dañuy attana fab nag joxe ko ñoom te muñ te muñ euh, loolu alquran mi ngi ci nettali euh, qissab sayidna ali ibn abi talib karamallahu wajhu ak mook waa këram soxnaam sayidna fatima ak ñaari doom sayidna hasan ak sayidna husayn bañ wooree ba ngoon jot lañ waroon a doge euh, miskin ñëw di sàkku ndimbal ñu jox ko ko muñ bañ a dog am amuñu lu ñu dogee ci ëllëg sa teewu leen a wooraat ba ngoon jotee bañ del ba war a dogaat ab jirim ñëw ñu fab lañu ñu waroon doge jox ko ñetteelu fan ba teewu leen a wooraat ba ñu wooraatee ba dog jot ku ñu jàpp ku moomul boppam euh, ñëw ñu jox ko ko mooy li alquran di wax wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزيهم ما صبروا جنة وحريرا ba aaya jeex kon nettali na jëf ji nettali bu leer naññi euh, teg ca ne ñoom bañ koy def nag dañ ko doon def rek ngir jëmmi yàlla wutuñ ca woon ak pay payuk nit ki ñu koy defal sàkkuñ ci woon tam ak cantam yàlla la ñuy jëflanteel ci jaamam waaye nee na euh, yàlla lam lañ ca faye mooy dañoo wax rek ñoom la leen tax di def mooy dañoo ragal bis penc bay ñëw te ay euh, tiitaange ki njàqare yu bari ne fa te nit ki war koy moytu loolu lañuy moytu ba tax ñuy def lii ñuy def mu ne suñu boroom nag ne yàlla mu musal na leen kon ci euh, ayu ayu bis boobee may leen fa mbégte ak naataange mm, tàbbal leen aljana ci muñ ga ñu muñoon ba am lu ñu so lu ñu yor soxla ko lool ku ko soxla ni ñoom ñëw ñu jox ko ko ngir yàlla loolu kon euh, jikkoy jullit la jikkoy gor la loolu kon euh, lii sëriñ bi digle te jëf ko loolu lañuy la ñuy fàttalik sëriñ bi mag bi borom barab bu sell bi itam soññ nañ ci lu mel noonu wa kullu man waafaaka littidaai fasbub alayhi matar al ataay in kunta zaaginan wala taxtakiri maalan ila gadin li xawfi darari li annahu subhanahu wa taala huwa alladi ataaka zaaka al maala xaytu ma aksarta fihi talafa li wajhihi ataaka jalla al xalafa nee na képp ku ñëw ci yow di sàkku ndimbal boo bu fekkee ne bari leen nga na ko jox lu baree baree baree bari melal ni kuy taw ci kawam jox ko jox jox ba mu jaaxle jox ko lu bari melal ni kuy taw ci kawam bu fekkee nekk nga boroom alal nekk nga ko woomal lool te bul denc alal jëmi ëllëg ngir ragal ne boo ko joxee bu jeexee da ngay ñàkk te kon nga loru mu ne bul ragal loolu del joxe te bul ragal ak ñàkk ndax yàlla la jox alal ji soo ko joxee ngir jëmmam mu joxaat la leneen noonu la ko wax noonu la ko waxe euh, kon kon loolu itam kon joxe boobu kon jikkoy taalibe la taalibe bu dëggal ni mu nekk jikkoy jullit bu sellal noonu la nekkee jikkoy taalibe bu dëggal kon bu ko lislaam santaane alquran santaane ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam soññee ci euh, euh, sëriñ bi itam digle ko kilifa gu mag gi fi nekk itam di di ko jëfee te di ci soññee war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax kon ñu jàppalante bu baax a baax kenn ku nekk loo am lu mu néew néew nga bàyyi ci xel ña nga dendal ak ñay ñëw di sàkku si dimbal ñu dimbalante bu baax a baax a baax ndax dimbalante googu day tax sunu boroom yërëm ñu day tax mu dimbale ñu nee na irhamu man fil ard yarhamku man fis sama bu ngeen yërëmee ñi ci kaw suuf maanaam bu ñu yërëmee ñi am kattan am doole bu ñu yërëmee ñi leen féete suuf gën leen néew kattan yàlla mi leen bokk bind ñoom ñëpp dana dana leen yërëm kon bu ñu yërëmantee ci suñu diggante dimbalante jàppalante yàlla mi dara tawut te du jeexal kon ñun ñëpp danañu yërëm danañu dimbale euh, te kon loolu it bokk na ci li ñu war a bàyyi xel ci jamono ju nekk ah, rawatina ci jamono ju mel nii bokk na ci li war a gën a bàyyi xel itam ñaan ñaan dellu ci suñu boroom ñaan ko ndax ñaan dafa nekk jaamu yàlla gu mag a mag a mag sëriñ bi mu ngiy fàttali xadis bi yonent bi wax ne ñaan mooy mooy yuurug jaamu yàlla bu jaamu yàlla doon jëmm ñu ne yuur gën ci bopp bopp ja mooy ak ñaan ku ne xam na yuur ni mu amee doole ci dundug doomu aadama nee noonu ñaan ñaan noonu la mel wax wala si muxala ibadati doon yi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam tam nee na euh, sëriñ bi fàttali ko ci euh, ay bayit mu ne wal amru bi taxsini wal i'dadi wa bil mudawati xadithun baadi mu ne yonent bi sallallahu alayhi digal nañu bu ñu bëggee aar suñuy alal ñuy génne asaka xasina awla amwaalakum bi sadaqati nee na digal nañu itam bu ñu am nattu dalee maa ñu koy séentu ñu waajale ko ñaan wa aiddu lil balaa'i bi du'a nee na itam koo ci xam ne da nga amug wéradi bëgg mu saafarawu del saraxe ko am am ku wéree di nga bëgg mu mu wér na ko saraxeel te ñaan yàlla ci barkeb ci tawa tawasul ci sarax ba ñaan yàlla saafara ko wa daawu mardaakum bi sadaqati kon ñaan dafa bokk ci ngànnaayul jullit addu'a u silaaxul mu'min ngànnaay ñaan mooy ngànnaayul jullit jullit bu bëggee euh, jànkoonteeg ay jafe-jafe bëgg caa mucc day dellu ci boroomam ñaan ko ndax la muy ragal ca boroomam la bàyyi ko kon bu ko bu ca ca bëggee mucc na ko ñaan yi moom ma koy moom ma ko yortali ko teg mu mu teggil ko bu fekkee teg na ko ko wala mu bañ ko koo teg bu fekkee tegagu ko ko bu fekkee num yaakaar la di ko bëgg itam di ko sàkku ci loxoy sunu borom la nekk kon na ko ko ñaan moom mi nga xam ne moo koy maye kon ñaan ñun ñëpp mën nañoo maase gën a bàyyi gën a bàyyiwaat xel ñaan dalu ci suñu borom ñaan ko mbas mi ak jafe-jafe yi dund gi ak xat-xat yi ak tànk-tànk yi lépp ñu ñaan ko mu teggil nu ko euh, rawatina ñaan yi nga xam ne euh, yu mel nii moo ko moom moo ko taxoon a jóg mu aju ci ni ñëwee ci bërëb bi ak ni ñu fi nekke ak ni ñuy wëlbatikoo sëriñ bi kon joxe na ndigal ne képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci béréb bi bala ngaa ñëw nanga nga indaale masque boo dee koo xam ne doo ko jëfandikoo na nga yor kaala goo xam ne dana mën a muur sa bakkan ak sa gémmiñ bu ñëwee itam jumtukaay yi ne ci bunt bi muy fu ñu lu ñuy raxasoo mbaal lu ñuy diwoo ngir di ko fegoo itam ñu jëfandikoo ko bu njëkk see itam béréb bi toogii nii dañ dafa am soppiku ni ñu daan toogee di sësaloo nañu ko léegi dafa am soppiku dañuy dandante diggante kenn ku nekk ak moroom mi dafa war a am lu mat mètre ci seen diggante buy dox ci diggante bi kon loolu ñu bàyyi ci xel ne dañoo war a dàndante koo xam ne ñëw nga fekk Eh, bërëb bi fees nga xam ne diggante yi yiñ bàyyi rek a fi des diggante yi nga xam ne moom lañu bàyyi rek mu war a teqale diggante ñaar nga xam ne bi nga ñëwee diggante boobu rek nga fekk mu ne fa barab la bu ñu waroon a mën a toog bu dara xewul waaye ci xew-xew yi tax na dandante googu nekk lu ñu santaane kon bu ñu nee fees na koo xam ne ñëw nga ñu xamal la ne la amatul fu ñu mën a toog ndax béréb yi fi des muy ay yaatu yaatu yooyu gis ci sa ñu waroon fa mën a toog dandante gi moo laaj ñu bàyyi ko fa ba tax ñu bàyyi ko fa euh, kon ku ñëw rek bu fekkente nee nañ ko fees na na xam ne kon fees na euh, mu dem xool beneen barab ci biti bu àgg bu feesagul bu fépp feesee nag su boobaa mu xam ne kon yéeneem yegg na mu dellu këram loolu ñu ngi koy fàttali fépp di ko fàttali ci barab ba nga xam ne moo féete ca penku kilifa di fa nekk ñu xam ne foofa it ndigal li yàgg na fa ndax euh, ndigal li ci kilifa gi la bàyyi ko te moo jiitu ci ñi koy ñi ci tënku te di ko wane kon ñëpp rek la ndigal li euh, jëm ci ñoom li nga xamee ne euh, sunu boroom subhanahu wa bu daa joxe ay ndigal ci yonent bi la koy tàmbalee moom lay koy njëkk a digal yaa ayyuhan nabiyyu taqillaha teg ca ña sës ci moom ak jullit yëpp kon tam loolu mooy wéy rek fu ndigal ñëwee ndigal laa ngay tàmbalee ca kay jot li ndigal la moo ci njëkk a tënku ndax jàngale ko waaye kon ña nga xam ne ñëpp it ay royteef lañ ñooña it dañu nañ joxe misaal ci topp ndigal ak wane ko kon loolu tam ñu ngi ci bàyyi lu xel ci di ko fàttali ci ndigal sëñ bi sëñ bi koy sëriñ bi nag moo joxe ndigal li jot li rek lañ ci am te lot sax ci niñ ko war a defee daayira bi it muqaddamatul xidma ay ndaw rekk lañu yu sëriñ bi yabal di leen liggéeyloo kon li ñuy def ñoom it du seen xalaati bopp du seen bëggu bopp waaye ay ndigal la rek yu ñu leen jox ñu war koo wéyal kon ñu bàyyi xel ci toogin yi dandante bi ñu bàyyi ci xel koo xam ne fekk nga diggante diggante ñaar ñoo xam ne ñoo dandante ba noppi bul toog ca diggante ya di di xëtt nos bi bu ñu noppee itam bay génn ñu bañ a buuxante ci bunt yi bañ cee rajaloo ndax dajaloo boobu lañuy moytu moo tax bu ñuy génn nañ nañ génn cig teey cig dal cig nosu cig toppante kon loolu bokk na ci liñ doon fàttaliwaat ngir ñi nga xam ne tàmbali waxtaan bi fekku leen fi woon ñu fàttaliwaat leen ko kon ñu ngi tolloon ci di wax ne ñaan bokk na ci li am solo lool ci waxtu ne rawat na jamono yoo xamee ne ay tànk-tànk ak xat-xat dafa am rawatina nag buñ tollee ci jamono ji ñu nangoo ñaan muy weer wu tedd wi ñu nekk nga xam ne sëriñ baa ngi ñuy fàttali ne e, weeru koor ramadan weeru koor yëpp ba weer wa teroo ba ba muy jeex jamono jépp guddi yeeg bëccëg yi waxtu yëpp waxtu yi ñuy nangu ñaan la e, e, awqaatuha inda jamiil arafa qul ramadanu summa yawmu arafa bi muy lim euh, waxtu yi nga xam ne ci la suñu borom nangoo ñaan euh, lim ci njëkk a tudd mooy shahru ramadan weeru koor kon nee na weeru koor jamono la ji ñuy nangoo ñaan euh, kon ñu bàyyi xel bu baax ci ñaan ci biir weer wi aay yi nga xam ne mooy jàngale mu aj ci koor ci suratul baqara ci ay yooyee ba muy laataa jeex suñu borom dugal na ci biir mbirum ñaan wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani falyastajibu li wal yuminu bi laallahum yarshudun loolu mu ngi ko dugal ci biir aaya yi yi muy jàngale eh, waxe ay atte yu jëm ci koor kon loolu dañ ci dégg ne ki woor na ci biir koor gi ramadan war naa bàyyi xel ñaan bu baax ci biir eh, ko weer wi kon farlu bu baax ci ñaan ci biir weer wi ñaan sunu borom dàqal nu mbas mi dàq teggal nu yépp xat-xat ak i jafe-jafe ak tànk-tànk euh, ak i njàqare ak i jaaxle yépp mu dàqal nu ko ñu ñaan bu baax dellu ci sunu boroom kon weer wi weeru ñaan la ñëpp xam nañ nag ñu ngi ci ñu ngi ci mujjug weer yi ci fukki fan yi mujj ci weer wi di fukki fan yu ràññeeku yoo xam ne moo mat gën a bàyyi xel ci weer wi jullit bu nekk daa war a bàyyi xel ci weeru koor wépp waaye ramatee na ci fukki fan yi mujj yonent bi sallallahu alayhi wax na ne bu fukki fan yi mujj ci koor masaa jot day fatu maanaam day day day day intikaaf day féete day féete ci jàkka ja li fa yendoo ko fanaan taqoo julli taqoo jàng alquran takkoo tudd yàlla taqoo ñaan bu fukki fan yi mat sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu itam noonu la daa def fukki fan yi mujj ci koor da ko daa intikaaf daaw ko génn da ko daa fatu féeteku ci jàkka ja di dee rek boroomam ba fukki fan yi mat kon koo xam ne sa muy sa sa dundin sa ak sa pastéef xëy na àggul foofu itam boo mënta fatu ci sa jëmm itam sa xel moom ak sa xol war nga koo def ci yàlla ci fukki fan yu mujj yi waxtu wu ne sax rawatina waaye rawatina ci fukki fan bi nga nga fatu ci sa xol bokk nga intikaaf ci sa xol ak sa xel di bàyyi xel yàlla bu baax di tudd yàlla di jàng alquran di eh, def ay nawaafil eh, tey dimbale itam doomu yi bu baax di bàyyi xel eh, ndax fukki fan yu mujj yooyu ci lañu ñu gën a yaakaare laylatul qadr xadis yi nga xam ne yépp ñëw na di wax ci laylatul xadr kañ lay doon euh, bis yi ci ñëw yëpp yi ci ëpp ci fukki fan yi mujj yi la nekk ñu ko tàmbalee ci guddi gi rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله